alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wattabi'in la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokk jullit yi nuyu lislaam di nuyu bu tedd waaye di ñaan saa borom subhanahu tabaraka wa taala mu defal ñu yërmandeem gu mat la di siyaare mbokk yi nga xam te dañuy faral di teewlu jotaay bi yëpp mu mel ni nag dañuy desiwaat ci suñu jotaay ak yóbbulum ndaw ñi mu jotaayu xamle waaye di jotaayu fàttali konte ci ni ko yàlla digle ñu tolloo nag doon jàngale téere bi ñuy wax aljawharun nafis sunu bindi nag bii mujj ñu bàyyee xel ñi ngi doon jàngale jëw diggante nit ki ak moroomu nitam moom jëw bon jëm bon ak ni ko yàlla indee ci alquranul karim ak ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis nettali ci nettali yoo xam te nii boo ko dëjee di xam ne jëwkat lu jara wattadiku la te jëw lu bon la ñi ngi tolloon nag ci doon wax ne jëw bon gim bon moo taxoon sunu bayit ba mu jon moo nekkoon waxiibatul muslim mooy jëw ab jullit fii xawlil xabiiri ci waxi aji dañ jëkkumpa ak xabaaxu moo gën a bon min akkalika ci sag lekk jiifatal xamiiri meddum mbaam mu kon jëw ab jullit moo gën a bon sax lekk meddu mbaam kon yow ab jullit lu bon la kon lu jar a wattandiku la moo tax mu ne wa xisatul marjuumi xisaab ku wal is wala isnayn ak ñaar na as bu ko war na laa doy zaajiran di ak jàjji di xayri may ci lu dut naat mu nekkat xissa ku ñu jam mooy kañ rayaan ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam war na laa doy ak xuppe la xupp la ngir nga bañ jëw benn moroomu doomu aadama war na laa doy ci jàjj la jàjj nag mooy xupp ak ragal loo mu ne mabdu aha ak tàmbaleem mabda oha ak tàmbaleem moom xissa boobee anna rasulallahi naka yonente bi yàlla bi alayhi yàlla na nekk ci moom aska salawaatillahi gën jaa sell xéwal yàlla xad kaana nekkoon na zaahiban di dox wajaahu mu dikke ko rajul jenn waay fa mu wax yonente bi xad halakta alkuna yaa xayra rasuli yow ki gën ci xaala yonente wax ko lahu ñeel ko moom lima lu tax loolee fa xaalam wax ko inni naka man zanaytu njaalo naa mox sanan mbir mu may aji sañawu bee xam din ci tay min nii ñaal ma mu nekat xissa boobee mi ngi tàmbalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas di dox benn bis bi muy dox ba ci yàgg am jenn waay ju ko dab ku góor daal di wax kat ne ko man kat yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yaa gën ci yonente man de alkunaa alkunaa de yonente sallallahu alayhi wa wax ko ne ko waaw moo tax nga wax ne alku nga mu nekk man kat dama njaalo maanaam dama jaxasoo ak jigéen yoo xam te takkuma ko te bi may jaxasoo ak moom fekk na kat ma sañawu sañawu nag buñ ko waxee mooy fekk na ma am soxna ci yoon lislaam bam dagan ma ànd moom ba pare dem ànd ak beneen jigéen loolu mooy sañaw li mu waxee loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kat ne ko man torox naa ndax dama njaalo yonente bi ne ko kat wool nit ñi ñu def lislaam santaane ci yow mooy ñu rey ndax njaalo bu amee ci diggante góor ak jigéen moo xam góor la moo xam jigéen la ak teeb lislaam mooy kon dañ ko dañ ko war a rey bi lislaam santaane mooy ñu rey ko rey boo xam te ni dañuy woo mbooloo ñu koy sànni ay doj ay xeex ba mu faatu bi mu waxee loolu ko man njaalo naa te fekk bi may njaalo fekk na ma sañawu xaala yonent bi wax ko lahu ñel ko udduhum naasa wool nit ñi yar jumuka ñu jam la summa daxaahumu topp mu woo nit ñi fa xataluuhu ñu rey ko isya um gog matale na wa baxda za ginnaaw lii fadihahu topp na ko sax saani ñaari jëmm li rajuli ñeel waa joojee almarjuumi kàddu kuñ jam yaxtaabaani ñu koy jëw di wax ci moom hatta ataw ba mu dikke leen jii fatal xayri meddu mbaam fa waxaf mu taxaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaala mu wax yaa zaani yéen ñaar ñii kulaa lekk leen zii meddu mbaam mii wa te mu waat moom yonente bi inni naka man ala gis naa yajurru muy diri siyaabahu ay yéréem fil jinaani ca àjjana faf tadaaxa gog ruus nañ torox nañ sax saari ñaari jëm yooye doon jëw jëmu jooju kat mu ne bi mu woowee yonente bi sallallahu wax ko loolu yonente bi daf ko wax ko wool nit ñi ñu def lislaam li mu santaane ci yow ba ba mu woowee nit ñi nit ñi rey ko bañ ko reyee nag ca na ko lislaam santaane ba pare ginnaaw ba nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di dox ànd ak nit ñi am ñaari ñoo xam te nii kat dañoo nekkoon ci biir mbooloo mi di jëw waa ji nga xam te nii dafa njaaloo wax ko yonente bi ñu rey ko ñu koy jëw biñ koy jëw nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg leen bi mu leen déggee nag fekk ñu ngi dox bi ñuy dox ba ci yàgg ñu yem ci meddu mbaam mbaam moo xam te dafa dee ba medd yonente bi sallallahu alayhi taxawee ñëpp taxaw mu ne leen yéen ñaar ñii kat di jëw waa ji lekk leen mbaam ñii ndax kat dafa yamale walla sax lekk mbaam mii moo gën seen jëw yi ngeen di jëw yonent bi daal di waat nag ci yàlla bi mu waatee ci yàlla na leen na ngeen xam ne waa ji ñu rey nga dafa njaaloo ñëw tuub rey gii ñu ko rey ngir tuub gi mu tuub ci digganteem ak boroomam tuub gi suñu borom nangu na ko gërëm na ko ba nga xamee ne maa ngi gis waa ji ci àjjana mu sol ay yére yu gudd di buubu te biir àjjana man yonente sallallahu alayhi wasallam maa koy gis ndax gërëm gi ko yàlla gërëm ak tuub jum tuub yàlla nangu ko ko kon waaja ma nga àjjana sol ay yére yu gudd yére yaa ngi buubu ca biir àjjana yonente bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi koy gis ba mu waxee loolu nag ñaar ñoo ngi daal di ruus daal di toroxlu lool ndax xam ne gàcce dal na leen gàcce gu rëy dal na leen ci liñ doon def mooy jëw kon lii nag dafay wane ne jëw sa moroom jullit lu bon a bon la lu jara wattandiku la jullit bu nekk war naa wattandiku di jëw moroomu jullitam comme niñ ko waxee woon bi maa ba di ko tudd fenn foo xam te nekku koy waxal neexu ko ndax lii war na ko wane ne jëw lu bon a bon la ndax kii ji doon jëw yàlla dogal na tuub na jéggalu na yàlla ba sax am na ngërëmal yàlla ba texee na ba dugg biir àjjana yow mi koy jëw nag yaa ngi def lu bon yaa ngi bàkkaaru te yow xamoon koy mujjee kon nag lii dafay wane ne jëw sa moroom jullit lu bon la ñépp war nañ ko watandiku ndax xisa bi xisa bu doy waar la xisa la boo xam bu jara bàyyi xel la kon mu dikkaane wal buxudu ak bañeel hind haula in nuxu bi fa way tànneef la buxuduka mooy sag bañ musliman ab jullit bi xay sababin ci ludut ab sabab yooyu bu dafay waral buxdahu bañeel ga bi sarxil mustafa yi yàlla dool tedd allahu yàlla xalihi ci moom summa sarafa topp mu teral ko mu ne kat na la ci tàmbali maa la bañ benn jullit wala ko def te yàlla tax bëgg benn jullit ko def yàlla tax te kon daal dafa waxoon ne ci ci bind yee bëgg na ngay bëgg yàlla tax booy bañ te yàlla moo tax mu wax na ne benn jullit warut jullit daal warut a bañ moroomu jullitam te yàlla taxut bu la waxee bu la waxee nag ne waroo bañ benn jullit te yàlla taxut mooy nit ki bu dee ab jullit boo koy bañ na nga gis ko mu nekk koo xam te nii kat dafa sàggane jaamu yàlla dafa sàggane yoonu yàlla nga bañ koo ngir sàggane gim sàggane yoonu sarixa yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moom kenn terewu ndax lu baax la ndax dafay tax nit ki wàññi waaye bañ ab jullit nag te dara taxul lu dul intérêt amul benn sabab bu ko waral loolu lay wax ne la kat lu bon la te loolu warut ab jullit di xayi sabab bi lu amul benn sabab nga xam bañ jullit bi rek te bañoo ko tegoo ko fenn nee kat lu la mu ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaaba mu ñu tamit wa ruyatul fadli ak gis nga neen ala xayri ci keneen mooy ci ku dul yow azina ak njaalo zuxriyatan ak ñaawale wa habasun ak fo bii sa na alxanaa ñaaw téef bi mu dafay wax kon nag yenn yoo xam te dañ ko tere ab jullit ci lay tàmbali nag moo tax mu tere nañ ci ab jullit muy gis nga neel ci boppam wala muy njaalo wala muy ñaawale di jullitam wala muy fo yooyu daal mu ne ab jullit bu nekk war na ko wattandiku jullit bu nekk war naa gënale boppam moroomu jullitam wala muy njaala wala muy ñaawale moroomu jullitam wala muy fo yooyu daal jullit war na ko wattandiku waaye benn bu nekk nag dina la wax nan nga koy wattandikoo ak loolu mu lay tere bonaay ba nam mel kon mel ni dañuy wàcce suñu kàddu fii di ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak topp ñuy waajaat beneen jotaay boo xam te ne ñuy ñëw nag ci lii mu tere ban gi ban ak lan moo koy waral kon yàlla nañ suñu borom defal tawfeex defal ñu li gën ci ñun te dëppalikoog li ñu bëgg waaye lépp lu fi jub nañ xam ne ci yàlla la lu fi dëng nañ xam ne suñ jëm yu xeeb yii la ñuy wàcce suñuy kàddu di wax na yàlla nañ suñu borom nangul fu ñuy jaam yàlla in uridu illa al islaaha ma stata'tu ma tawfiiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu